asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu fi leen baaxoo nuyu mooy daarul xudus ci ndigalul Serigne Mouhamadul Muntaqa Mbacke di xalif général de Mouride ci ndigalal Serigne Ahmadou Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy xalifab daarul xudus ci ndigalal Serigne Cheikh Mbacke Madina ak Serigne Cheikh ak Serigne Moustapha Mbacke. mi nga xam ne mooy xalifa guy mbind mel na nii mooy jataay bi nga xam ne moom la ñu baaxoo def at mu nekk ngir fàttalikoo ko tubaa Touba radiallahu anhu muy bis bi nga xam ne moom la sëriñ tubaa bàyyi ko woon ci euh, njaareem ñëw fii ci Touba dëkkaale ak boroomam bis boobee nag lañ leen di fàttali mu war yemoog ñaar fukki fan wala fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre bi. mbokk yi dañuy daal di jox kàddu gi rek sëriñ Ahmadou Ndiaye. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci ndigalul sunu kilifa gi toog sëriñ Ahmadul Muxtaar ñuy fàttali ci ndigalul jëwriñam di kilifa ak yoon wi Cheikh Mouhamadul Muntaqa bis bi nga xamante ne nii baaxoon nañ leen ko fàttali muy màggaluk Tuubaa di bis boo bii muy dëppoog fukki fan ak juróom-ñeent ci mois de septembre wala ñaar fukki fan yi ci mois de septembre sëñ baa ngi koy fàttali mboolem jullit ñëpp umma islamiya bépp fépp fu waay mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew sëñ baa ngi la koy fàttali fas nañ ci yéene amal nag ay jataayu waxtaan ngir fàttali ni sëñ Mouhamadul Moustapha daan yare wane it ay exemple ci ñi mu yar waxtaan yooyu danañ ko ubbee ji guy mbind incha allah ak yenn ci bunt kër yi njaboot Cheikh Mouhamadul Moustapha yi danañ amal itam exposition bi nga xamante ne ni baaxoon nañ koo amal ginnaaw bu ne ginnaaw suba la màggal ren ñu koy def ci jàmbaari sëriñ Tuubaa ja di sëriñ Daaru Xasan Njaay doon modèle ci ab taalibe doon modèle itam ci ab jullit ni mu war a melokaanoo ci sàmm ormay Sëñ Tuubaa ak sàmm diineem danañ amal itam mbale mi nga xam ne baaxoo nañ daan ko def di ko barkeeloo itam ca jeexitali Cheikh Mouhamadul Moustapha yim daan taxawoo bis bi le 13 septembre di ajjuma ji sës ci màggal sëñ baa ngi ciy woo mboolem taalibe yëpp mu ngi soññ mboolem ñi aju ci diiwaan bi ñëpp ci bunt kër Cheikh Mouhamadul Moustapha njabootuk guy mbind gépp bàyyiwuñ kenn ñuy yëkkati suñu kàddu ci turu Cheikh Mahamadou Moustapha mi nga xam ni mooy sa jëwriñ ji la nekkal ci njabootu Cheikh Mahamadou leen Barak ak guy mbind kon nag Cheikh Moustapha di soññ rek mboolem bokk yëpp ak taalibe yi ni nga xam ni ni lañ ko baaxoo def mooy niñ ko dundale fii ci Darou Khoudoss incha allahu noonu la joxe ndigal ñu fas ko yéene dundale noonu ci fépp foo xam ni kër Cheikh Mawlana leen Bara nekk na fa rawatina fii ci Touba Guy Mbind kon mu ci soññi ñëpp mbokk yi ak taalibe yi ñu ànd dundal ko kon fu ab jullit nekk loolu jar na nga bàyyi say soxla ñëw fi ngir am jéglu suñ borom moo tax suñ Moustapha nag di woote ak di soññee mboolem taalibe yi ak bokk yi ñu dundale ko noonu nga xam ne ni la ko ko tedd ki soxlaa ñu ko dundale loolu la Cheikh Moustapha waxoon ne suñ ñëwee rek sëriñ bi ñu woote ko di fetli lépp nag muy taalibe gi ak kilifteef gi lépp mu ngi koy fetli fetli waale njaboot gépp di jébaliwaat boppam. di sant Serigne Touba bu baax a baax mi nga xam ne moo waral bis bii ñuy woote fii ci Daarul Xudus tamit bisam muy xadimu rasul njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha gépp ak njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara xadimu rasul gépp dajaloo ci sunu ginnaaw waajur. di sëriñ Ahmadou Makhtar ñu koy xoolee jëmmi Cheikh Mamadou Moustapha te mat ko sëkk euh, ñoo yëgle bis bii nga xam ne mi ngi am incha allahu euh, fukki fan ak juróom-ñeent wala ñaar fukki fan ci weeru septembre wii ñu jublu ñu fas ko yéenee defee nag fii ci daarul xudus njabootu Cheikh Mamadou Moustapha gépp kër yëpp teew euh, tàmbalee ci kër Serigne Cheikh Gaynde Fatma jaar kër Serigne Mbacke Madina jaar ci kër Serigne Dan jaar ci kër Serigne Aliou jaar ci kër Serigne Ibra jaar ci kër Serigne Saliou jaar ci kër Serigne Fallou ak seen jigéen ñi fi nekkoon seenu njaboot nekk fi te seen càmmiñ yooyu lépp lu ñu def masa def jëmee ko ci Cheikh Mouhamadou Safa Touba ñu ànd ci ak ñoom xàmmee wu ñu góor ak jigéen njaboot gépp ñu ngi teewu fii ci ginnaaw Serigne Amadou Makhtar ànd ko ak njabootu Cheikh Mamadou Lamine Bara Khadimou Rasoul di bokk itam liggéey boobu ci njabootu Serigne Touba gépp ndax euh, la tàmbalee Cheikh Mamadou Moustapha bi Serigne Touba jógee mu wuutu ko ci wuutinu wu jafewa wa wu sell wa ba lépp ak si fi tey lépp rafet mu ànd ko ak rakam yu tedd ya Cheikh ànd ko ak Serigne Abdoulahi Lahad euh, Serigne Abdoul Khadir Serigne Saliou ak seen rak yu tedd ya ñëpp bokk ci liggéey boobu ba turaas bi egg fii tey alhamdulilahi rabbil alamina di leen woo ci bis bu tedd bii ci daarul xudus nga xam ne mooy ñibbisi Serigne Touba ci Touba ci dëkk bu mu gënoon fonk di woo ñëpp ñu mën ñu teew ci bis bii nga xam ne mooy bisu xaadimu rasul mooy ak ñibbiseem delluwaat ci sunu borom jógee ci liggéey bu tedd bi mu doon liggéeyal Muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñibbisi ci dëkkam bii nga xam ne muy dëkk bu tedd muy Touba al Mahrousa kon ñu ngi leen ci woo góor ak jigéen mag ak ndaw jullit yëpp umal islam yëpp yëpp kon Euh, nañ ci yàlla yu bëgg jàmm ñu tàmbalee ko ci bismillahi rahmaani rahim eggalee ko ci alhamdulilahi rabil alamin maa ngi yëkkati sama kàddu ci ndigalul sunu kilifa Baye Ahmadul Mokhtar Mbacké xalifa Cheikh Mouhamadul Moustapha ak Cheikh Mouhamadul Lamine. rajo nag li ko waral mooy sëriñ bi mu ngi fàttali bis bu màgg bu nekk ci suñu kanam di bis bi Cheikh Ahmadou Bamba Abdullahi wa xadimu rasulihi ñibbisee woon Touba. di fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru muharram ci atum 1927 bi liggéey bi matee mu joxoon ndigal Cheikh Mahmoudul Moustapha ko waxtu wu liggéey bi matee fi njaareem na nga ma yóbbu Touba te bu xat damm su loolu amee nag lépp lu ngeen sumbati danaa ko àggale loolu nag Cheikh Mahmoudul Moustapha defe ko na ko sëriñ Touba defe woon na ko Serigne Touba bëggee woon bis boobu nag moo dellusi Baye Ahmadul Mokhtar jot ndigal ci Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko fàttali jullit ñëpp di ko fàttali yoonu murit wépp di ko fàttali bokkam yi mu bokkal sëñ yëpp ci fàttali googu gi ñi mu bokkal sëñ mi ngi tàmbalee ci kërug boppam gii di Daaru Xuddoos ba ci kër Cheikh Mouhamadul Mourtada bàyyiwul kenn ci diggante bi di ko fàttali bu baax itam mboolem njabootu sëñ Tuubaa li tàmbalee ci soxna Faatija Mbàkke ba ci soxna Maymunatu Mbàkke Laylatul Xadar ñi ci diggante bi ñëpp tàbbi nañ ci biir ñu mu ngi koy fàttali it bokki sëñ Touba bokki boppam yi li tàmbalee ci kër sëriñ Mor Jaara mi mu bokkal lépp ba ci kër sëñ Masamba bàyyiwul kenn ci diggante bi mi ngi ciy soññi jullit yëpp di ci soññi taalibe yëpp rawatina nag e, mbooleem seex yi nga xamante ni dañoo aju ci Daaru Xuddoos ñoom bis bi seen bis la kuy ñëw na leen fi fekk kuy dem na leen fi bàyyi mi ngi ciy mi ngi koy fàttali itam Euh, jumtukaay sëñ Tuubaa yi di kër maam Cheikh Ibra Fall te sëriñ Cheikh Jëmb Fall nekk ci bopp bi ak lépp lu aju ci moom sëriñ bi nee na mi ngi lay fàttali bés bi mi ngi koy fàttali it mboolem ñi bokkal réew mi ñëpp di ci jiital ki nekk ci bopp réew mi ak mbooleem ñi koy jàppale ca la muy liggéey euh, sëriñ <clears throat> bi nag euh, mi ngi digal taalibe yëpp foofu waay mën a nekk li sëñ Tuubaa gënoon a bëgg te ñu gën koo taamu ci bés bi nga def ci yitte bu baax a baax loola mooy lan njàngum alxuraan mu sell te teewlu ko sellal ko lu mu gën a bari moo ko gënal def ko addee Cheikh Abdullahi wa Xadimu Rasuli Cheikh Ahmadou Bamba xasaayid it luñ ci man ñu jàng ko te sellal ko def ko addee Serigne Touba. liggéey boobu nag mi ngi ciy jiital daaray kaamil ji ci Touba ak daaray kaamil yee ci njaareem ak daarul moxti bu ko tuddee mel na ni mën nañoo yóbbaale daara yi aju ci kër Serigne Touba yépp ci réew mi bàyyiwul kenn. mi ngi ci soññi itam di ko fàttali mbooleem ñi mu bokkul diine ji muy turuxu suufiye yi ci senegal fu ñu fi mën a nekk sëriñ bi mi ngi leen di fàttali bis bi te leen ci soññi ndax aw yiw la te yiwu sañ Tuubaa ñëpp a ko bokk te moom du xatal lu sëñ Tuubaa yaatal ni ko sëñ tubaay yaatal rek noonu la bëgg mbir mi yaatoo noonu kon mi ngi koy fàttali ñëpp te di ci bàyyi xel ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi nuyu mbokk yi fi daje ñuy déglu. di leen fàttali bis bi nga xam ne moom lañ jublu mu ñaar fukki fan ci tam xarit wala fukki guddi ak juróom-ñaar fukki guddi ci tam xarit bi muy màggal gi nga xam ne moom la ñuy defalal sëriñ bi muy sëñ Touba muy bis bi nga xam ne bi ci la ñu bisee Touba bis boobu la fàttali ñëpp di sàkku ñëpp ku mën a teew teew ci ku mënta teew nga def li nga xam ne bi moom la sëñ bi gënoon a fonk muy jàng alxuraan li jiitu li jiitu ci màggal gi lu ñu war bi jàpp naa ne mooy li mu bëgg muy alxuraan ku teew si na nga ko jàng ku mënt teew am ngànt mën laa teew it nga jàng ko fa nga nekk jàng ci xasida sikrullaahi sixfaar te moytu yëpp nga xam ne tere nañ ko ci dëkk bi muy muy li lislaam tere léegi nag ñoo ngi war ñëpp di xamal ne màggal gi màggal gi sëñ Tuubaa moo tax ñu def ko kon nag murit yëpp ak yëpp ñoo ko bokk. ku mën a teew na nga teew si ñaanal jullit ji ñaanal réew mi ñaanal lislaam yàlla def jàmm ci réew mi ak nawet barkeel dellu si jàmm. jërë mbokk yi bis bàngoogu ñu di leen ko fàttali bu baax a baax muy fukki fan ak juróom-ñeent wala ñaar fukki fan ci weeru septembre wi ñaar fukki guddi la ci weeru tamxarit bés bi daal bésu tonawu la ku bëgg jàmm bëgg yokkute bëgg ngërëm na nga ñëw ci bis bi ndax lépp fees na ci dell ndax bis bi sëriñ Tuubaa daje ak boromam mu koy fay nuróowut ak beneen bis wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.